Ibrahima Ama Diémé maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay nga bokk ci groupe de réflexion pour la paix en Casamance euh, déjà ma laaj euh, visite bi nga xamante ni njiitu réewu Sénégal amal na ko foofule ci région bu Sédhiou ci juróomi fan ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf boo nuyoo seen auditeurs yi may rafetlu ci sama ak ci GRTC. Euh, ci tournée bi jiitu réew mi def ci région de Sédhiou ndax bu ñu fàttee ne euh, Sédhiou bokk naa ci région yu gën a euh, bees ci Sénégal defe naa moom ak région Kédougou la moom la ñuy yokk pour que mu nekk quatorzième région ñu Sénégal am quatorze région donc loolu ñu tax ñu def ko defe naa ne président bi Euh, dafa bëggoon euh, wane ne ci plan de développement économique bu mu am te de bu ci am mu am équité territoriale ak maanaam ku nekk foo mënta ne nga yëg ne yaa ngi ci biir réew yaa ngi ci biir Sénégal donc mm. très région yooyu donc defe naa ne bu mu defee tout le tour du Sénégal ci quatorze régions yi diwaan bu nekk mu dem fa am lu mu fa diggee lu mu gisee lu ñu fa war a liggéeyee donc bu demee ba nekk jeexantalu mandat bi c' est normal que mu dem pour que seet loolu lu mu joxee comme digal pour que nit ñi liggéey ko est ce que ñu ngi koy liggéey ni mu ko ni mu ko bëggee woon moom wala am na lu des pour que mën ko euh, jëlanti balaa boobu. léegi euh, président Sall euh, dige woon na fa am na lu mu fa def mais ci visite bi teg teg na programme d' investissement bu ñu xayma ci quatre cent milliards naka nga ko gisee. ma yaakaar ne ren comme dem na ba mu promettre foofu quatre milliards après avoir évalué lu mu fa dugal seet fu ñu ko dug fu ñu ko dugal fu ñu ko liggéeyee ak li des defe naa ne bi mu décidé ne daf koy yokk ba quatre cent milliards. lu baax la mais man bu doon sama gis-gis personnel euh, su mënoon a def lu weesu quatre cent milliards encore mooy mu nekk li gën parce que euh, développement moom ak jàmm amul amul prix dafa am coût lépp lu ñëw ci waaye def forcément dañ koy góobee ëllëg donc euh, bon mais soo gisee moom mu yem ci quatre cent milliards peut-être xëy na foofu la doole bi toll fu mu nekk nii mais mënoon a def lu ko ëpp ko mënoon a def du du du du doon doon lu nit ñi euh, jàmbat au contraire daal ci kontaan parce que mérité nañ ko parce que Sédhiou def def bokk na ci région yoo xamante ne euh, dafa enclavé diwaan bi dafa nekk à chaque côté du fleuve Casamance benn partie bi nekk euh, au sud beneen bi nekk au nord te ñu am nekk ay jafe-jafe pour jógee sud dem nord. Euh, wala sax jógee Sédhi ñëw Ziguinchor doo xam fooy jaar ba bu ñu defaree tali defar pont mu remplacé temps donc léegi mën ngaa dem heure bu la neex euh, diggante Sédhiou Ziguinchor donc loolu defe naa ne lu lu am solo la donc quatre cent milliards du dara. bu fekkoon ne mënoon na ko yokk mais dinañ applaudir donc comme foofu la yem aussi ñu nangu ko en attendant ñu koy ñaar mu bënee yokk rek mu yokk voilà euh, njiitu réew mi ci visitam bi euh, Ama Diémé nga nekk koo xamante ni euh, bokk nga ci ñi nga xam ni ñi ngi xeex pour jàmm am Casamance njiitu réewu Sénégal tàllal loxoom waa mouvement des forces démocratiques de la Casamance ngir jàmm am foofu yow ban jàngat ngay def ci loxo bi nga xam ni njiitu réew mi tàllal na ko waa MFDC. je crois que loolu aussi lu baax la te ku nekk. képp ku nekk sénégalais wala nga nekk xaritu Sénégal nga ne biir Sénégal wala bitim réew defe naa ne mënoo ludul dul rafetlu boobu boobu appel boobu main tendue comme ni mu ko waxee euh, ndax bi mu doon à euh, deuxième fois parce que defoon na ko ñu ñëwee Ziguinchor euh, mu tendre la main pour wone ne moom pare na pour que waxtaan mën a am pour que jàmm am. defe naa ne loolu moo indi euh, résultat jéego yi ñu ci def ba euh, fu mu nekk nii da toog euh, parfois boo fàtte ne sax amoon na lu ñu woon crise en voilà donc loolu bu ñëwee Sédhiou defati ko je crois que dafay wane ne d'abord moom déggu na ci li mu gëm la donc léegi li des mooy nit ñi askan wi askan wi ci boppam accompagner ko ci loolu ndax ñun ñëpp ku ñu nekk euh, ay politiciens ay acteurs politiques wala ñu nekk ay opérateurs économique wala ñu nekk homme de communication comme yéen am ngeen ne euh, jàmm ji am nii loolu lool foofu la réew mi mën a xëcc parce que le, démocratie sax balaa mën a exprimer wu foog jàmm am foog jàmm am bu jàmm amul démocratie démocratie bi mënul mënul mënul exprimer wu mm-hmm. donc euh, mu tendre la main acteurs yooyu mooy les acteurs politiques les acteurs euh, de la région et même de la au niveau national donc appel bi defe naa ne appel inclusif la donc ñu lu dul rafetlu ko pour ñu mm. gunge ko ñun ñëpp que jàmm ji mën a am. am na ñoo xamante ni ñu naan euh, gannaaw ba armée bi bombardé foofu euh, base yu mouvement force démocratique de de Casamance ba pare njiitu réew mi di tendre la mais gis nañu daal ñaari mbiri àndul parce que bombardement yooyu lay am na euh, lu mu jur foofu ca ca Casamance yow ban jàngan nga si am le fait fait que ñu bombardé base yi ba pare noppi njiitu réew mi di tàllal loxo MFDC est-ce que ànd naa en bon loolu moom appréciation kenn ku nekk moom mën a apprécier nu mu ko nu mu ko gisee man en tant que GRPC li ma mosoon a wax. Mhm. ci njëlbeen moo di problème bi problème mu sénégalo sénégalais la euh, donc solution bi mënul doon lu dul solution waxtaan autour d'une table bon maintenant euh, am na ñoo xam ne dañuy yaakaar ne noonu non non euh, beneen beneen démarche bu mën a am mais su ma mënee fàttaleku. Euh, li ñu koy gérer depuis kiiwu euh, président Abdou Diouf euh, bi mu ñëwee au départ effectivement la solution militaire avait été la solution préconisée mais gis nañ ne dem nañu ba ñu toll foo xam ne doxul mu dellu siwaat tendre la main au leader charismatique du MFDC à l'époque mooy le président l'abbé Diamecoune Euh, cette main tendue cette poignée de main d'ailleurs moom moo indi discussion yi dem ba ñu signer les accords les derniers accords de Banjul en deux mille en quatre-vingt-dix-neuf début deux mille ba pare comme ñu ngi waaj a campagne Abdou Diouf ne donc léegi ñu xaar bu ñu paree élection yi ñu tàmbali ñu ñu ñu eggali processus malheureusement bu ñu ko bu ñu ko euh, gagné ci élection bi moom mu dem ki ko remplacé le président Wade toog waaye décision bu mu jël au départ mooy problème bi moom dina ko réglé ci ci téeméeri téeméeri fan donc permettre kenn wax ci léegi ñu noppi di tiis fii ci téeméeri fan moom mu réglé problème bi dugg na dem na ba jógee fa mais lu ñu gis mooy téeméeri fan yi passé na at passé ba yeneen ñëw ba militarisation encore reprendraat guerre bi amaat ba keroog bu Macky Sall di yegsi mais balaa wat di dem justement mu xalaat ni ah je crois que waxtaan moo gën ci la créer n'est-ce pas le processus de euh, DDR nest pas alors loolu mhm. wane na ne il faut discuter il faut désarmer il faut ensuite réinsérer ñu nekkan ci Macky bi loolu waxtaan rek moo ko mën a indi président Macky Sall yegg si moom mu daal di continuer ci loolu mu ne donc main tendue à partir de Ziguinchor nañu waxtaan donc euh, bombardement yi am euh, bon la plupart du temps militaires yi ñooy apprécier ce que bi ñuy def ak li ñu dul def mais résultat bi dans tous les cas ak nu mu mënta demee foog ñu toog waxtaan je crois que bu ko président bi waxaate je pense que c'est très bonne chose ñun ñëpp ñoo ci war a dugg jàppale ko ci pour que yëf yi jeex parce que euh, la paix aussi elle a un coût elle a il faut que ñëpp accepter que coût bi bu ñu ko defee rek ñu accéder ci la paix et je crois que différents projets président définir noonu PIDC Prima et cetera et cetera Promoville mm. ñu ngi dugg ci justement nan la ñuy def pour que jàmm ji sax ci région bi Hmm. politiquement président Sall lan la mën a gagné ci mbir mi visite u Sédhiou bi tàllal gi mu tàllal loxo MFDC. bon oh, je ne vois pas un politique politique bu président di xaarandi ci loolu. Euh, la seule chose bi ma gis la seule constance c'est que moom la ñu jiital réew mi donc euh, jàmm réew mi ci moom la war ci moom la ci ci moom la euh, dépendre gis-gisu jàmm bi doxalin pour jàmm ci sax ci moom la dépendre ndax sénégalais yi ñoo ko denk réew mi donc moom dafay def lu mu yaakaar ni loolu la war a def pour que jàmm am ci réew mi pour que développement am ci réew mi te comme moom développement moo ko sokal boo tax na ba programme am mu tuddee ko Sénégal plan Sénégal émergent émergence ba pare mu ne dans l'équité la di diwaan yi yëpp war nañu tollool euh, ci wàllum développement dem wàllum investissement wàllum équité donc loolu tax na ba fépp fu mu war a dem ak lu mu fa war a def mu def ko bu dee bu dee bu dee gée lañ ci war a seet loolu rek la te d'ici ba mandat bi di jeex moom la war moom moo war a définir fan lay jaar fan lay teg tànkam fan lay orienter nit ñi pour que ñu war a am am mooy jiitu réew mi si booba donc je crois que loolu euh, il faut nit ñi fàttale ko ne tournée économique obligation la normalement ci autorité politique bu ñu investir ak wala autorité administrative pour que nga dem xool xam nit ñi lan la ñuy jànkoonteel comme difficulté noo leen koy mën a fajee est-ce que nawet bi jaar na yoon est-ce que euh, mbey bi mu ngi dem yoon est-ce que sàmm ji mu ngi dem yoon est-ce que entreprise yi ñu ngi dem est-ce que tali yi ñu ngi koy defaree moom ni mu ko gisee est-ce que pont yi et cetera et cetera loolu yëpp moom la euh, pajum nit ñi et cetera et cetera c'est ça le sens d'une tournée économique te def ko ak jamono boo ko mun a defee obligation la te nit ñi war na ci jàppale parce que ça permet aussi aux gens ñu accéder ci moom nekk Dakar rek taxul nit ñi accéder ci moom. bu ma joxee exemple sax par extrapolation gis nga le roi du Maroc am na dans toutes les régions un palais euh, euh, royal te day jógee euh, capital ba dem dëkk dëkk di benn région pendant un certaine durée nit ñi mën a accéder ci moom bu fa jógee mu delluwaat demaat ci beneen capitale mu def fa mais fii ku soxla président foog nga dem Dakar Dakar pour que président yëg ci région foog ñu yónnee ko bataaxal wala rapport pour ñu nekk lii ak yi la moom bu demee xoolal bëtam dina xam nan la war a def pour que saafara lii saafara la parce que looloo tax ñi ànd ak moom pour fal ko ci plan Sénégal émergent donc c'est son droit c'est une obligation d'ailleurs buy def tournée économique te su ma sañoon war na def toutes les autres régions di def élection prochaine d'accord Ibrahima Ama Diémé Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité man maa leen di euh, remercier aussi parce que yéen moo permettre ma mën a wax ak euh, sama concitoyen à mm-hmm. partir de donc problème boo xam ne soxal nañu ñun ñëpp mooy nan la mun a fexe ba jàmm bi sax ci Casamance jàmm ji sax ci ak ci sous-région bi. merci beaucoup may fàttali ni membre nga ci groupe de réflexion pour la paix en Casamance. merci oui oui.